daal nay xool rek li nga xamante ne rek moom moo teree dox boobu lee bërëb mu ñeel nag li nga xamante ne rek moom la ñu fas yéene indi nag ay leeral xool ba xam rek lan moo ñàkk dox foofu waaye bu ñu rek ci journal bi di Libération daal di xam ne nit ki tey ci altine ji que ne ki nga xamante ne rek moom moo nekk directeur bu yees bu seen publique bi nag dafa daal di def ab découverte boo xamante ne rek bu doy waar la ginnaaw bu mu xamee ne rek ay yem chaque 30 juin bu nekk rek dañ leen doon jox enveloppe toll ci 200 millions de francs CFA yoo xamante rek fonds commun yu ñu war a séddaloo ci seen biir mbir mu nu mel nag mu nekk mbir moo xamante ne rek ay régie financière dëgg la maanaam daal euh, koppar yu takkoo takkoo la ci mbir mu nu mel nag question yi ba nga ni rek ñu ngi koy weendi ndax agent RTS ci seen jëmi bopp rek euh, jamono ji jot nañ xaalis bi nga xamante ne rek tàmmoon nañ di ko jox chaque le 30 juin bu 2024 bi ba xam jot nañ ko muy laaj bi ñu sampo waaye kii di Pape Alé Niang moom ci jëmi boppam rek fas yéene bi budgétaire la ak lépp loo xamante ne rek bokkul ci politique ak lépp loo xamante ne rek dépense publique la te ñenn nag di ko pàccoo mbir mu nu mel nag moom la gouvernement bu yees bi taxawal ndax mbir mu nu mel nag kii di Pape Alé rek fas yéene na ko def mu nekk laaj bi ñu samp ba tax na nag journal bi boobu lee laaj nag indul ci benn leeral nee na nag li nga xamante ne moom mooy IGE daal dinañu ko xaar rek mu amal ab mission boo xamante ne rek ca boobu le cabine rek la koy amalee mu nekk audit boo xamante ne rek ñu ngi fay xaar mbir mu nu mel nag nag la suñu nattangooy Seneweb daal di xamle ne nañ kii di Pape Alé Niang nag daal dinay jël dogal yu am solo rek ngir mu la dogal ce que sax du merloo ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy liggéey ca boobu lee bërëb ñu dippee nag radio diffusion télévision sénégalais di RTS ki nga xamante ne rek moom moo nekkoon ancien directeur publication bu Dakar Matin daal dinay bloqué accord yi nga xamante ne rek Racine Talla daal di woon na koy conclure ak yenn euh, syndicat yi mu nekkoon accord boo xamante ne rek dañu ko signé woon ngir yokk nag li nga xamante moom mooy mooy seen salaire ci 80 pour cent ñoom ñoo fay liggéey ñëpp ba tax na nag libération ma ngay daal di xamal rek boobulee doggal ak loi bi nga xamante ne rek jamono ji daal dinañ koy jël ñu ngi koy xaarandi rek ba xam ban position la ci son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di am ci décret bi nga xamante ne rek Macky Sall signé woon na ko laata muy jógee ci bopp nguur gi maanaam daal ba mu desee juróomi fan rek la signé woon boobulee décret nga xamante ne rek mandaam demoon na ci jeex mu nekk nag benn code boo xamante ne rek dafay ci jëmmi boppam nag jamono jii li nga xamante ne daal moom moo uh, daal di xew uh, ci boobu boobulee mbir nekkul nag fotom uh, waaye nag arrêté bi nga xamante ne rek daal di woon nañ koy signé ak boobu dee loi ba xam nag dina am ak coppar ci ak lépp lu mu ci mën ci doon daal RTS ci jëmmi boppam rek du am effectif wala sax ab faute d'arrêt boo xamante ne rek ci loi finance daal di jógee ko ci mbir mu nu mel nag kii di Pape Alé bu ñu defee ak pàttali daal di woon nay dakkal lu toll ci 200 lignes téléphoniques yoo xamante ne rek dañ ko doon jox ay agent yoo xamante ne daanaka yelloowuñ ko ñenn ñi nag demoon nañ rek retraite waaye moom ci jëmmi boppam rek eh, jotoon na nangu ay oto yoo xamante ne rek dañ ko joxe woon ci façon boo xamante ne rek jaarul yoon mu nekk action boo xamante ne rek jamono ji mel na ni rek dugg na ci volonté jub jubal bi nga xamante ne rek ñoo ngi koy sàkku nag ci moomeelu askan wi mu daal di dëppoo ak li nga xamante ne rek moom la nguur gu yees gi bëgg jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngi dara bañ leen